on est à stratégie politique on est à stratégie politique xam nga waxoon na ak politiciens, ko politicien acteur politicien mineur majeur politicien majeur pour une stratégie gagnée Ou c'est le développement de la Casamance c'est pas Doudouka Moi, maire ou moi. ambition pour ma gox c'est ma ambition pour le Sénégal Je xam nañ ko depuis président de la République j'ai ma confiance je ma suis rédiger piloter diriger la rédaction de son programme 36 ans je suis la coordination du pôle des grands projets mais sama ambition mënul mënul nekk parce que tabul mu ma mairie bul bul xam nga tay jotuloo ko rek nga bëgg cracher ci mairie comme ça wax ne dafa tuuti non waxuma tuuti non lan lan nga bëgg wax waxuma dama dafa tuuti dama ne dama ne parce que jotuloo ko rek nga bëgg nga waxuma dafa tuuti de nak naka laay waxee dafa tuuti non envergure bi nga expliquer ci nomination yi ak yëpp wa dama ne tay fuma nek nekk envers man mën la wax dar tay directeur général de tous les aéroports du Sénégal avec un projet de hub aérien de 461 milliards. Le budget de la mairie de Ziguinchor, c'est 2 milliards. Est-ce que, est que, en termes de comparaison, le président de la République, 14 aéroports du Sénégal, donne-moi un programme d'activité de 461 milliards, déjà aéroport, investir instant Cap j'investis un programme de 29 milliards au Cap. Je vais faire investir l'aéroport de Ziguinchor de 24 milliards mairie, si je 2 milliards, investissement de 600 millions de 1 milliard. Donc, vous faut comparer. ce qui n'est pas comparable. Mais, est-ce que est-ce que, est que, pendant 5 ans, il pas

de mes de mes euh, partisans nous avons espoir ma espoir beaucoup le ambition Doudou Ka tey la gën taxaw euh, directeur de campagne le président président coordonné la campagne de tout toutes les communes de la en résumé mon déception mon déception en résumé nga sénégalais yi nga wax ak taala déception président amul bëgg man bëgguma dama lay laaj. non xa xa xaaral xaaral wax la xaaral wax la pourquoi yow nga bëgg a dëgg rek loo loo bëgg a wax yow. yow ma ne la Sénégal yëpp ñaari coordonnateur régional ñoo am Sénégal yëpp attends noonu wax la beneen Sénégal yëpp président de la République xam nga dëggoon nga ko tey xam nga lu ma wax mu ne képp ku mu tànn tête de képp ku mu tànn tête de liste yooyu yaay nekk mandataire sa liste boobu dëggoo ko fii mu koy wax président jox ma coordonnateur région bi yëpp ba pare mu ne Ziguinchor comme yow wóolu naa sa liggéey xam naa ñu nekk si terrain bi yooyu yow do yooyu yaay nekk mandataire mu seppi Sénégal suñu communes yi yëpp mu appliqué loolu mu ñëw Ziguinchor appliqué wu pourquoi mu def loolu loolu loolu mooy cër cër nag kilifa su la ko joxee da da nga siy sant yàlla ba pare nga doxee ko cër boobu mënoo ma fi wax ni cër dafa tuuti boobu parce que cëru njiiti réew mu jox la loolu mënoo ma fi dugal sama bopp wala sama doxalin ba mu nekk léegi ñu ñëw ci ticket ticket bi ticket Baldé Sonko Sambou Sané ticket boobu jàpp ci génn yéen Baldé ak Sonko ci biir ci a jaar a wax ni que man matuma sama place ah, <laughs> loolu nga bëgg a wax léegi léegi loolu loolu nga bëgg a wax ma ne la yow du du dañu rendez-vous le 23 janvier la loolu loolu wax ne rendez-vous le 23 janvier ñu dem 23 janvier parce que en fait il y a pas de ticket Balde n'a pas de bilan donc si ñu defee ticket boo ticket, Balde son collègue, cela veut dire qu'ils n'ont pas de bilan C'est la qu'on wax Balde mooy nekkat maire La population est yëpp suur Il mu bañ ko nangu hauteur jóg président de la République jox ko jox ko def ci mairie Ziguinchor lu mu deful ci benen mairie APR yoy yow nga mën ne ñooñu man dina dina population Ziguinchor dinañ ko tabat mu nek maire tabel suñu dëkk ah bon day tabel suñu dëkk moom xam nga lu ma waxoon 2017 mhm. 2014 dañu doon dem campagne électorale mu neñu man sen dom la bal leen ma rek bu leen ma toroxal parce que dama am ambition présidentielle ñi ni ambition locale lañu am baal Marik 2017 2019 dina présenté population Ziguinchor comme dañu bëgg sen sen dom comme ñu defoon Sonko ñu plébiscité ko ma yàgg wax so may déglu mané ki il ne sera jamais en capacité d'être candidat parce que gëmul lu lu muy wax 2019 nakul candidat tey lan lañu wax dafa bëgg am place

dama bëgg ñu dellu ci ñu ci ci ci affaire. nga ni Ousmane Sonko mi ngi meeting à samedi yow nga samedi mais j'espère que provocation du fa am. non yow tax may wax. non non non non non non non non non non provocation yi provocation mais lolu ñëpp ñoo yow lañ ko jiiñ parce que yow yow bu fekkee am na gaay est-ce que yow ci sa ay parti ñi nga xamni trois personnes mais parce que man duma ko duma ko duma def comme mom victimisé wu trois personnes ñoo gañu gañu yu métti man lolu d'abord may euh, massa wu ñu gaañ parce que c'est important c'est des gens de Ziguinchor man booy yu gaañu gis nga Ziguinchor pourquoi man soo ñu xam ñëpp xam nañu nit di jàmm la man may homme politique bo xamanteni jotay jotaay booy yu naan caay tous les jours mangi mangi sen gox si si si di wax ñom donc boy yu samay boy lañu même si on ande ànd Ousmane Sonko c'est mes boy donc ma leen di di famille mais vous mënu na ñàkk parce que Ousmane Sonko dafa non, non non non non mais non, xam nga lan la nit ñi mënul comprendre waaw nit c'est-à-dire ci Sénégal ñu naan kii fii la wara taxaw fi la wara defé fi la euh, wara defé réunion warul defé fi réunion mais pourquoi muy ñew sama booru keur pourquoi pourquoi pourquoi pourquoi wax ma la pourquoi dé man néwuma fon déjà du lu ma wax loolu ndax dama ne loolu mënoon na ñak parce que gis nga kilifa fay am doxali wax nga ko légui ci exemple meeting bu muy def si spot temps yi télé deug nga gis nga ñuy wax ni euh, dans le cadre de RSE moy fond euh, AIBD lu muy jappalé euh euh population yu nek ci aéroport yi ni ñuy wax responsabilité sociétale d'entreprise ren caravane médical 60 médecins li ñu yobu Ziguinchor yaa ngi koy gis buñ koy yobé ñu ngi ko ñu commencé sport bi depuis 2 semaines ñu né dañ koy def lycée Périssat ñepp ci sport bi mënu ñu ko won changer sax ñu ngi def lycée Périssat ma ñëw ma gis ni Sonko da fay meeting place Bambaya quartier Périssat samedi te Ziguinchor ñun ñu ngi koy def samedi mané ne ah sama sa sama gars yi moo leen man leen ah